di sëriñ Moustapha Mbakke moom Cheikh Sidiel Makhtar moom Cheikh Mouhamadul Amin mbokk yi xam ngeen ne bisub tey jii su ngeen gisee sunu jotaay bii nu tooge ak sunu kilifa gu tedd gi te nu yàgg koo toogeek moom lool yàlla na yàgg nuy wéy di ko fi fekk mu nuy dimbali ci Cheikh Mouhamadul Amin waxtu wu nekk saa yu màggaluk Mbàkke Kajoor ñëwee mu jox ñu bind boo xam ne bu nu toppee tegtal ya ak ndigal ya man koo jariñoo ba dellu siwaat ci kanamam muy Serigne Cheikh Thioro Bachir Mbacké mi nga xam ni moo yor kaddu guy mbind gépp nuy ñaan mu yàgg fi Mbacké tànd ak wér tey nag di bisub Cheikh Mouhamadou Lemine fii ci Mbacké Kajoor na mu ko daan defale rek nu dëkk micro taataanaat ci moom kaddu yoo xam ne daan ko jariñoo ba déwén incha allah bandeeg dogalu borom bi te mu ëmb lépp di Cheikh Mouhamadou Lemine dara du ci génn Cheikh Mouhamadou Lemine waaye tamit nag bis bii nga xam ne moom lañ koy defal njariñ yi mu làmboo ak sabab li kon nu maa si déglu sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala hadil amin sayidina muhammad ibni abdillah wa ala wa sahbi wa man tabiahu dala ila yawmi din ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam sant ku tedd ki gërëm ko xaadimu rasul ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp e, tey jiital ci nuyoo beeg siyaar yi e, Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy Cheikhul Xadim e, di ci toftal ñaanal ko yàlla suñu borom guddal fanam may ko wér tey sant yàlla ci moom kenn ku ne xam na ji pàkk bu sell bi di Mbàkke Kajoor fi la cheikhul xadim waxe woon ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko feeñu ngir mu yeesalaat sunnaam su sell sa ñu jaayanteek moom te loolu dafa dafa dafa tënku ci ci al al imaan wala islaam wala ixsaan te moo di xam-xam ak jaamu yàlla akuk taalibe te loolu bu doon jëmm tey danga naan mooy jëmmi Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax lenn loo xool ci yooyu benn ci moom di ko fekk ci jëmmam ji ci jëfam ci waxi waxinam ci melokaanam ci aw doxinam ci lépp kon moo Cheikh Mouhamadou doxaan li ma ko dégg dafa firi njàngilem sëñ Tuubaa te li yéeneem mooy ñëpp delluwaat ci cosaan la li saamam sëñ bi doon woote e, mooy tabaxaat doomu aadama te jiital ci xam-xam ak yar kon ñu ñaanal ko yàlla ndimbalam ci moom ba li bëgg mu def ko ni mu ko bëgg bi barakati rasulillah alayhi salaatu wasalaam ñaanal ko rakkam yëpp ak njaboot bi yëpp e, di siyaar itam suñu waajur mi ngi fi bàyyi Ahmadou Makhtar mi nga xam ni moo yilif pàkk bii ni mu yilifee Daaru Xuddus siyaar Cheikh Mawlou Moustapha mi nga xam ne tey mooy Cheikh Mawlou leen baara ñaanal ko yàlla guddal fanam siyaar njaboot sëñ baara yëpp tey ñëpp ñëw nañu Eh, bis bii nag mooy bis bi nga xam ni ci la Cheikh Mahmoud Amin ibnu Xaadim su gane àddina muy ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci jumaadal ula wax nañu ba tàyyi li ci nekk ci ay njëriñ ak xéewal ak i daanaka jërta baamtuwaat ndax ñëpp xam nañ ko bis bi nga xam ne Cheikh Saliou Mbacke moo waxoon Cheikh Sidel Maxtaar ni ko eh, nañu koy fàttaliku ndax bisu paj aajo la ginnaaw bisu paj aajo la nag Cheikh Moustapha ànd ak njaboot gépp woote ko ñu ngi ciy fas aajo yi ñëpp faju bi barakati rasulullahi alayhi salaatu wasalaam sëñ bi nag ni mu ko wootee mooy ni sëriñ bi sàkkoo ñu koy woote bépp bisu nitu yàlla te mooy ni ñuy màggale guddi yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ay jikkoom fàttaliku ko te moo di tax siimuhu bi sunnati yàquduna lil jannati moo waral bi ko Cheikh Mouhamadou Moustapha wootee sàkk woon ci ñëpp njàngum alxuraanul karim ak tudd yàlla def ay istixfaar julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam jàng xasaa it sëriñ bi noonee lañ ko tàmbalee woon bu weer wi teroo ba léegi ba ci bis bi noonu lañ ko xëyee di ko dundalee noonu ñu ciy sant nag bu baax ndax dañu ko woote woo ci mbokk yi woo ci taalibe yi woo ci état bi waaye ñëpp wuy si nañ ñu kon li ñuy euh, wax rek moo di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñëpp ñëw ci jàmm ñu dundal ko ci jàmm ba mu jeex ci jàmm ak salaam ñëpp ñibbi waat ci jàmm bi barakati rasulillahi alayhi salaatu salaam ñuy sant itam ndax dañ ñoo dénk màggal gi ñu ànd ak autorité locale yi nga xam ñoo nekk fii tam nekk sous préfet ak euh, préfet ak gouverneur waaye seen kemtalaay kartan def nañ ko ci màggal gi lépp nag mënut a daje mënut a ndax xat-xat yi ñu toll xam nga ni campagne mi ngi nii su ko ubbi waaye lépp li seen man-man def nañ ko ci wàllu sécurité bi ci wàllu ndox mi ci wàllu wér-gi-yaram ci wàllu eaux wàllu gu man di doon rek mën nañu wax ni seen kemtalaay kartan def nañ ko ci ba tax na ñu leen sant ci loolu li ma mën a wax rek daal mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nitu yàlla la woon. ku jeexoon ci yàlla ku ko xamoon ku ko ragaloon nekkoon murit saadix itam di ñaareel ñetteelu doomu Cheikhul Khadim mu am luñ mën a roye ci moom mooy liggéeykat la woon dafa daan liggéey ci tool yi di liggéeylu daf daan jàngale euh, tampom kachem Mouhamadul Amin mu darisul Qur'an la ci defoon mm-hmm. loolu mooy wane ni kon ab jàngalekat la woon sëriñ Bara daana liggéey ci loxoom. su masaa saa bëgg daaj ay barak wala ay sàkketi sa moo koy daaj ci loxol boppam su masaa saa bëgg a ñawal waa këram magasin la yoroon eh, di ñawal dongo yi di ñawal waa kër gi yëpp ci machine ci loxol boppam loolu la muy firndeel mooy yonent yi alayhi salaatu wasalaam da ci am ñoo xam ne dañ daan def dañ daan ay sàmm lañu woon am ñoo xam ne ay menuisier lañu woon am ñoo xam ne ay commerce lañ ay commerçant lañu woon loolu la Cheikh Mouhamadou Lamine Bara doon feeñalee nit ñi ku toll doomi Sëñ Tuubaa ni moom di liggéey ci loxol boppam loolu dafa am ab bind bu muy jàngale mooy nit na fonk liggéey nit na fonk xam-xam kon loolu suñ dee fàttaliku bisam di ko ci ñaanal di ci sant yàlla war nañuy fàttaliku waale ni doomu aadama bu mën di doon danga war a fonk liggéey kon Seex Mawlana Baara Ibnu Xaadimu Rasuul nit la wan koo xam ni ku fonkoon liggéey la kon dañuy soog a tàmbali rek ñu ñaan yàlla suñu subhaanahu wa taala lépp li nga xam ne def nañ ko fi ci ay njàng alxuraan lu ñu fi def ci ay ñaan lu ñu fi def ay sodoxaat lépp mu ñeel ko yàlla àggale ko ci ruuxam àggale ko ci waajuram ba ak képp koo xam yaa ngi ci barsax bi barakati rasulullahi alayhi salaatu salaam xam nañu ni itam ni at mi weesu daaw bari na ci njabootu Cheikh mu leen bare ci doomam yi ci sëtam yi yoo xam ni dañoo wujj suñu borom ñoom ñu fasaale leen ci biir ñaan gi suñu borom fab ñoom dem dott ko ci ñoom tàbbal leen aljanatul firdaws bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam sant yàlla itam ci njabootu te ñaan leen ñëpp yàgg fi ndax tey amul kenn koo xam ni yaa ngi bokk ci njabootu sëñ Baara te amuloo fi kër ñoom ñi nga xam ne njabootu sëñ Baara yu góor yëpp ak yu jigéen yi doomam yi seen doom yëpp ñi ngi ci ëtt bi tey eh, di màggal doomi sëñ Baara yu jigéen yi fi des yëpp itam ñu ñaanal ñu gën fee yàgg ñoom itam ñi ngi fi di ànd ak ñun màggal gi taalibe yëpp it ñi ngi fi kon sant nañu gërëm nañu ci woote bi nga xam ni woote woon nañ ko ngir dundal li nga xam ni mooy bis bi nga as Cheikh Mouhamadou leen Bara gane woon àddina tamuy bisu faj aajo ndax ñeent fukk yi nga xam ne ñoo jéblu woon ci sëriñ bi eh, fii ci Mbàkke Kajoor ba ànd ak moom ñibbi Mbàkke Bawol ba eh, jaar Daaru Salaam ba ñëw Touba keroog bi sëñ Bara gane àddina da leen ni li ngeen doon sàkku ci seen borom gan gi ñëw andil na leen ko kon ginnaaw bi bisu faj aajo la ñu ñaan ci li nga xam ni moom lañ dugg te mooy ñiy xëccoo réew mi yàlla def ci ndox bu sedd guy ba benn bakkan du ci rot bi barakati rasulillahi alayhi salaam nga xam ni bu ñu wootee le 24 ci suba sa te altine ñëpp liggéeyi ku yàlla jox ndam ñoo xam ne jox na la ndam bi barakati rasulillahi alayhi salaam yàlla na ko yàlla def def jàmm ci réew mi defal ñëpp jàmm ñoo ngi jéggalu ñëpp nag tey jéggal ñëpp ni ñu koy waxee saa su nekk rek di sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ñu jéggal ko suñu borom ni ko gaa yu baax yëpp di di sàkkoo ñu nit bépp àq boo xam ne dox na suñu diggante ak doomu aadama moo xam jëf la moo xam wax la jéggal nañ ko ko eh, ci barke bis bu sell bi te suñ ko ko jégalee bu pare nag yàlla na ko yàlla jégal sottil ko sotti ko aw yiw jox ko ko bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ñi leen sant tam eh, yéen waa média bi eh, bari nañ waaye gis nañ Dakar Actu Bichri TV Yeti TV ak Touba TV ñeneen ñaa ngi ci yoon wi ñëw booba ba léegi yéen a nga ànd ñun ci liggéey bi di ko yaatal bu baax wëlbati cantuk presse bi yëpp cant la ko ci taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy am ak nun ci mbooleem kër Cheikh Mamadou Lamine waxtu wu nekk saa yoo xamee ne presse bi jug nu ba yëg si ci yow rek Mbakke lala war def nga ko ci ñoom ba saa su nekk bu ñuy jóge ci yow seenub xol seddu guy waxtu wu nekkit la nga nuy digal mooy nu sax ci njub euh, te li nga xamante ne bii moom la ñuy liggéey ñu di ci jaamu yàlla kon yow tam yàlla na nga fi yàgg te wér kon fu waaye nekk dañu seetaan rek nga tàllal sëriñ bi ñaanal ma